bajaxate jaxate jàpp nañ ko ci ay saaga ñi doon génn naan Pastef saaga rek lañu indi ci espace public bi ñoo génn di défendre bajaxate jaxate ñi wax ne ñoom victime saagay Pastef la ñoo génn di défendre saaga ba jaxate rax ci dolli sax di saaga. ñi génnoon dissoudre Pastef na organisation terroriste la levée de fonds yi blanchiment de capitaux la financement occulte la ñoo nekk di ko defal Bajaxate. Mhm. donc à travers jàpp Bajaxate bi lépp lu bennoo tegoon ci deru Pastef démonté wu na. Mhm. donc da ngay gis ni stratégiquement sax ñoom mbirum Bajaxate bi da leen a arrangé wut far. Mhm. waaye bennoo moom loolu du ma bett ci ñoom parce que bennoo boo ko yaakaar en fait. comme li sama waajoot di wax ñoom dafa mel ni à sens contraire la ñuy réfléchir maanaam bu nit ñi di gisee nii ñoom safaan ba la ñuy gisee. Mm-hmm. bu nit ñi di poser acte yu leen di jëriñ ñoom acte yu leen di yàqal la ñuy poser. Mm-hmm. donc jàppam gi du benn événement non événement la. Mm-hmm. nit ku nit ku dëppoowul ak yoon la yoon dal ci kawam. man foofu laa ko dugal vraiment. foofu nga ko dugal waaye nag euh, fi nga ko dugal itam am keneen ko fa nekk mooy euh, imam bi. Cheikh euh, Tidiane Ahmed Tidiane Ndao moom xam naa ne war na laa surprendre ci ku mel ni moom ci ak dayoo. bon bett na ma bi nga xamee ni jëmm ju mel ni moom ay doomi aadama di ko di ko woowee boroom bi xam-xam ñii doyloo ko ci xam-xam ñii di ko déglu mu yëkkati yenn kàddu yi jëmee ko ci nit waaye nag bon dafa appliqué wul mu jàng ndax bu appliqué woon lu mu jàng du yëkkati kàddu tuuma di ko teg ci as ndax diine dafa aaye ko xas asgor gor mooy ñett amu amoo preuve da nga am sanction. nombre da yat comme li nit di njaaloowee am sanction buy dal ci koom noonu la nit ku xas as gor amee sanction yi dal ci koom imaam tey bu doon réewum charia la dañ koy caw hmm. wallaay laasim dañ koy teg ci péncam caw parce que li mu accusé Sonko amul ci benn preuve comme ni nga xamee ne buñ jàppee kuy njaaloo ci nombre de CD lépp mat ni lay cawee ci pénc mi noonu la ñuy cawee ko xas as gor ndax yow amoo preuve hmm. waaye yow nga wax ni imaam nga boroom xam nga jàng ba wax ni da ngay jàngale waaye n'empêche di nga yëkkati ay tuuma yooyu indul benn preuve teg ko ci as gor donc juum moom amut dégg naa ñu ne nee na dafa juum nañ ko baal juum amut moom kañ bu su baaloo bu leen neexee ñu baal ko wala ñu baal waaye juum moom amut juumu fi daa wax li ko neex xëy na foogoon na ni waa Pastef dinañ rusa topp nit ndax fiñ jaar ci liberté d'expression wala foogoon na ni am na ci lu mu wéeru ba loolu may ko fit mais vraiment li mu wax boo ko indee ci diine dafa daanu foofu sax la gën a ñaaw maanaam moom posture moo gën a ñaaw sax bu ba jaxate ah, loolu laa jàpp xam nga ba jaxate mun nga ne ab jaayal buy téeli téeli la waaye kii dafa jàngata xam toog di jàngale teg ci ki jàngata xam responsabilité am mais munta yemoo munta yemoo ki xamul mhm. te accusation yi muy non mais non mais c'est c'est extraordinaire quoi c'est kon kon fi mu toll nii mbir yi war naa dem ba jeex non na dem ba jeex xam nga li tax dama jàpp ni ñoom ñaar exemple lañu war a def ñoom ngir réew mi maanaam pratique yi jógee fi jug taal sa caméra rek di sosol as gor moo xam opposition nga ne wala pouvoir dafa bëri trop ci réew mi trop ñun ñëpp ay victimes lañ ci loolu dafa bëri loolu ci réew mi da ngay yeew rek taal sa caméra rek affiché nit rek di ko yàq lu la neex te xamaloo ko dara te xamaloo ko dara dégg naa rek loolu dafa yomb diina da ko aaye loi da ko aaye mais ay nit nag mënuñ wax ni état de droit lañ ne ay nit di salfaañu loi te dara du leen ci fekk loolu bu yàggee mais mais looloo raw euh, anarchie. mais mais mais mais Cheikh Ousmane. Mhm. en bon yow macha allah sa xel màcc na lool jëm ci wàllu analyser ay mbir surtout loolu jëm ci wàllu politique. Mhm. ndax xam jàppoo ne c'est message qui se am message bu nekk ci ginnaaw. si si y mais une main xam nga boo xoolee lii lépp dafa am ku muy servir. servir. en quelque sorte mooy la candidat wu trente cinq pour cent yi. Amadou Ba. tout à moom ak ñi mu àndal. xam nga ñoom silence su équipe bi pouvoir bu bees bi dafa leen a sonal. silence maanaam benn silence afoon la ci ñoom. silence bi moo ëpp sax wax ñii fan lañ jëm ak ñun. rapport yaa ngi nii génn na gis nañ suñuy looxoor pourquoi réagiruñ cheikh bi silence arme bu extraordinaire la. ils veulent savoir ñi fan lañ jëm muy benn maanaam nañu sonde nan lañ cokkaas xam nga léeg-léeg nga gis borom doole bu taxaw sa diggu yoon xamoo ndax dalay dànkal kurpañ wala nga jël dara sànni ko ko xool ndax dalay song daanoo bàyyi loolu xel hmm. temps booy léeg-léeg nga doon benn mbedd gis xaj xaj bi tëdd nga jël xeer sànni ko xool ndax dana jug hmm. lii benn la cokkaas pour xool réaction bi lan la hmm. beneen bi dañu bëgg tuxal maam débat bi gouvernement bi dafa am prouesse yu en peu de temps quarante cinq jours mu yónne fàng-fàngaaral sénégalais yi commencé ci focus nit ñi di ci communiquer loolu mu munuñ ko opposer ñu bëgg toxal débat bi indi ko débat de bas niveau mhm. yaa jàpp tëj nga tëjoo Sonko way jaay doole yu mel noonu bu ko defee ñu assainir presse bi gis nga fan yi niñ mel quarante huit heures yi ñu ngi gëjoon gis yëpp gis nga leen donc foofu lañ bëgg indi débat bi détourner latention des sénégalais ci li li nga xam ne mooy l'essentiel mooy li fi nguur gi defagum donc ñaar yooyu am na ci. kon su ma déggee li ñu leen doon wax naan leen opposition bi dafa dafa dafa muet. Mhm. dafa noppi. silence assourdissant silence assourdissant bi ñuy def mhm. man xamul xamuñu lu ko waral. bien sûr loolu lañ nekk di corriger. mais bien sûr te bàyyi woo xel bi Amadou Ba ñëwee ci la yëngu-yëngu yi am. yaa ngi doon jeex na ah, jeex na donc moo tax ma ne la dafa am y mais une main derrière y a une main derrière bu baax bu visible sax bu ñëpp mun a identifier léegi nag ndax les sénégalais dinañ tomber ci piège boobu je ne pense pas. Hmm. parce que sénégalais ñoo sonn ci débat de bas niveau boobu. Hmm. débat politique politicienne boobu ñun ñoo ci sonn. ko dund ay at. parce que amul benn sens amul benn sens déjà dafay polluer euh, espace public bi. sénégalais leneen lañ soxla nawet a ngi ñëw. dëkk bi gestion gestion wu assainissement baaxul bu tawee day inondé ñu ngi jëm ci nawet ñi ngi jëm ci kii yëpp ay priorité la. mais mais li nga wax noonu. Mhm. est-ce warul woon tax ñoom ñu waroon a jóge sax euh, daal di xalaat beneen stratégie que ndaxte comme ni nga ko waxee ci ci jamono joo xamante ne nii élection yi bi mu jàllee yàggul. Mhm. matul sax deux mois fi mu toll nii ba nit ñi jëlee pouvoir ak léegi. Mhm. donc stratégie bu ne mel su dee stratégie la. indi ko. est-ce que c'est bien réfléchi alors. non c'est pas bien réfléchi en fait mun mun nga ne dañoo jeter ñi ñuy génnloo moo tax maa ngi koy démb ci benn plateau ñi ñuy génnloo fan yi dañ nekk di leen sacrifier. waaw sacrifier leen mooy lan ak lu ñu leen mënti jox ak lu ñu leen mënti proposer. Mhm. jaru ko mhm. jarul ñoom ñuy exposer seen biir parce que attention ku fi génn diffamer autorité gars yi dañ lay jàpp. Mhm. lii mooy dëgg de. ku fi génn accuser ay nit li nga yax amoo ci preuve dañ lay jàpp. léegi nag ndax yow avantage yu ñu la mënti jox wala lu ñu la mënti dig jar na ko je ne mhm. man kenn du ma mooy homme politique bu yore woon sa gestion bàyyi fi ay catastrophe bàyyi fi ay luuxu ragal yoon dal sa kaw nga bëgg maa géeree du ma ko nangu. Mhm. léegi nag ñoom ñooy nangu xool ndax ñoom danañ nekk agneau du sacrifice ñoom mouvement des activistes soi-disant républicains yooyu. ndax ñoom dinañ nangu nekk agneau du sacrifice. Mhm. man de couronne man la ku ma ko bëgg def loo ma bañ. en tout cas c'est pas bien réfléchi niñ ko defee baaxul te niñ ko defee en fait lim leen yàqal sa xaraw parce que nee naa la ci l'affaire Bah Diakhaté wane na ne ñoom lañ doon xeexee Pastef yëpp ndekete ay sa so tey liñ doon jiin Pastef na financement occulte la tey ñi ngi koy def muy levée de fonds. kon aveu la daal. aveu d'échec la de culpabilité la gis nga APR. Benno de manière générale boo ko waxee ñu ne xëy na ànd ak ñoom mais dafay disparaître dans peu de temps. Mm-hmm. dafay disparaître. APR. Mm-hmm. amut avenir ci espace politique bi. Ah, moment où le gars defar retour xam nga PS mi nga tas bi ñu nekkee au pouvoir. Mm-hmm. la tas la ñas génn jiboo ak yenn membres yi. ci lañ génn. bi PS demee opposition ñi fa reste mooy ñi gëm moo ko maintenir ñoo accompagner Tanor ba fi mu toll. PDS bi muy tas ñi ngi au pouvoir. bi muy génn Idi bi muy génn ñeneen ak ñeneen ñi ngi au pouvoir. APR moom après pouvoir lay tas mooy fi ñu toll nii te bu tasee dara dootu fa des parce que dafa bëri ay clan dafa bëri nit ñu yéenantewut jàmm dafa bëri nit ñu soxorante seen biir. te xëccoo bi entre Macky Sall ak Amadou Ba mais APR du ci mucc. Hmm. man dama gëm ne dafay dafay disparaître dans peu de temps même di nga gis li la wax APR dana woote réunion nga gis fa trois personnes et li symbolise loolu dama lay jox benn élément bu factuel rek. Mhm. président Macky bi muy génn palais. Mhm. quatre personnes ko wër. kan ak kan ak kan. Abdou Mbow. Mhm. Abdoulaye Daouda Diallo. le président de l' assemblée yaakaar na ak Doro Gueye loolu du APR. lii du APR ñeent ñi ma la limal du APR. moo dama la APR tas na léegi damal Ablaye bi muy génn pale ñan ñoo ko wër tegal ñaari image yi nga méngale leen. di nga xam ndax parti bi am na avenir wala amul avenir Ablaye bi muy génn pale comité directeur PDS yëpp ñu ngi wetam. wala lu ko raw. Macky Sall même si ministre newuñ même gouvernement bi mu mujjee am dix ministres teewul loolu ça veut dire beaucoup de choses. ay messages la ñu. ay messages da xam ne parti bi tas na. Ah. d' accord moo tax ñoom ci seen geeru geeru geeru geeru leader boobu. fi mhm. nii donc euh, est ce que Amadou Ba donc je sais pas mais théoriquement parlant. Mmh. il peut être considéré comme le chef de l' opposition puisque euh, élection yi ñu génn moom moo gagné moom moo nekkoon deuxième présidentielle bi est ce que moom noppi na.